ci wàllum dépôt candidature ñu gis ni Ousmane Sonko euh, DG demoon na ci DG mandataire am ñu lànk ne duñ ko jox fiche de parrainage ginnaaw ba met ginnaaw ba euh, décision juge daal di wàccee CDC aussi war ko jox attestation am ginnaaw ba mu ko joxewee li nga xam ne mooy quittance bi ñoom ñëpp ñu daal lànk taxaw temm rek ngir bañ Ousmane Sonko bañ a matal euh, neuf dossiers yi nga xam ne war na koo déposer conseil constitutionnel loolu yëpp nekk nag pour empêcher ko à doon candidat ci élection présidentielle Sonko déposé euh, candidature am loolu yëpp ban jàngat ngañ ci mën a defal. jàngat bi moom dañ koy delloo ci ginnaaw fu sore sore. Mhm. foo ñu delluwaat deux mille vingt et un. depuis deux mille vingt et un la ñu bëgg la ñu bëggul ne Sonko tekki dara ci dëkk bi. Mhm. voilà depuis deux mille vingt et un lii ñëw yii yëpp dafa dafa dem ba nekk ay ay banalité. Mhm. lu day ni magistrat wax ne euh, lii la ñuy def papier yaa ngi nii. c'est valable euh, euh, appliquer leen ko en attendant ñu bañ ko ñaari yoon mm-hmm. bon <laughs> euh, kooku moom tous les but bi moom xam nañ ko mooy def tout pour que Sonko bañ a bokk ci élection yi def tout pour que Sonko bañ a nekk cinquième président au Sénégal mm-hmm. kooku mooy l'objectif ñu départ ci ay affaire u jigéen dem ci ay affaire u gàtt sa gàtt sa ay affaire u lépp voilà dem formation façon bu euh, euh, bi daal moom mu ngi noonu mhm. euh, yërëm nañ ko en même temps ñu ngi koy vraiment respecté di ko ko delluwaat njukkal di wax ne vraiment moral bi mu am ah mhm. man de en tant que médecin xam naa ne ku dund vraiment boo ko résister nii ba taxaw toujours debout vraiment Sonko vraiment bravo mhm. na la yàlla may ndam ci li ngay def surtout booy xeexal ñoo xam ne amuñu règlement xam nga nit boo xeexaan ni day fekk mu am règlement mbër bu amee ñu ne ñaari mbër yi ñooy dugg ci làng bi mm-hmm. mais déjà ku nekkul ku nekkatul mbër nekk ci làng bi mm-hmm. xam ngeen euh, présidence euh, Macky mu ngi mu ngi toujours ci ginnaaw <laughs> moom euh, am na lu mu décidé ci Sonko loo xam ne moom du ko bàyyi kenn mu jàll ñëpp wax nañ ci man sama mbokk bu yi ma xam yëpp ne nañu yéen a ñuy ŋàññi yéen a ñuy ŋàññi mais dañuy wax ba sonn day ñuy wax ba sonn nit nag booy wax moom te du la déglu bon il faut nga am fayda yow tamit nga nga noppi ah mais ñëpp wax dëkk bii amul léegi nag ñëpp ngi toog euh, nii ko wolof yi di waxee mhm. euh, ku yoddu saxat ñu may rek élection yi jot ah, fu Sonko mën a nekk bu élection yi jotee euh, defe naa élection boobu mooy doon tribunal bi gën a bi gën a bi gën a dëgër bi gën a clair bi gën a leer kooku moom duñu wax ne magistrat bi dafa far fii wala farul fële. de façon addina bi yëpp far la parce que même magistrat yi dañu war a fay ñun ñu bu ñu naree voté ñi nar a tamit dañuy far. ngay faral kii wala faral kii nga voté ko bon bu ñu demee ba voté euh, voté ñu koy def far la wala ngay wax sax politique di jàppale kenn ñu ne la mais docteur bi day faralaat. <laughs> Eh, mais docteur buy dund te nekk nit yi vivre lu nekk. Mm-hmm. bu far jotee de il faut a pour avenir am wala avenir u doomam mhm. donc far boobu c'est pas péjoratif il faut que ñu euh, bu ñu naree voté foo ñu far mais question boobu moom jaratul ñuy ñëw jaratul ñuy wax ne xaw ma mais ñooñu dañ leen formaté wax leen ne kii bu mu fi jaar <laughs> kii bu mu jaar fii yëpp lu mu leen mën a jaral def leen ko ah bu ngeen paree bu li yoon tegoo si yéen sax ñu réglé ko mais l'essentiel mooy bu mu jaar kooku gis nañ ko mm. un avocat sax buy jàll dans un bureau ay euh, ay ay policiers di ko téye di ko malmené xam nga loolu tamit euh, vraiment euh, ruusoo na. ñun wax nañu les Sénégalais yi ñu yaakaaroon ñu ngi wax kenn faale wuñu temps yi dégg naa c'est les députés américains ñoo commencé wax. waaw sénateur commencé yëngal dëkk bi sénateur. waay sénateur. sénateur américain bon ça devient de l'actualité. waay ah bon mais loolu tamit ruusloo na quoi dëkk boo demee ba say. Euh, say naataango teg la. Euh, nekk sa kanam nekk sa ginnaaw. Hmm. ñooñu itam bu ñu lay wax dëgg lu nga xam ni euh, am na loo xam ne bu nekkul dëgg du dem. ok àddina mépp ngay waxtaanee. Hmm. bon léegi nag euh, li ma gën a jaaxal mooy violence bi ñu gis ak armement bi ñu gis ak préparation bi ñu gis ak Palestine ñu lépp ñu koy écraser te sunu président def ko moo nekkoon président de <laughs> l'OACI non affaire musulman yi kañ la nekkatu ko. Hmm. ah bon mais malgré tout waroon na wax quand te quand gis nga quand même li israélien di def tey waxul dara mm. est-ce que du ñoom ñoo nekk Sénégal violence bi ngeen gis armement bi ngeen gis mm. organisation bi ngeen gis niveau de d'espionnage ak écoute des téléphoné de kii bi ñuy def. Mm-hmm. kooku. Ah, dafa nañu ay israéliens ñoo ko mën a def. Mm-hmm. te boo gisee aussi Sénégal kenn waxul ci positionnement ci affaire palestiniens yi. palestiniens yi bon man defe naa ñu ngi fi de. <laughs> doy na waar wax dëgg fa neex yàlla et aussi comme ni nga ko waxee tantôt depuis 2021 euh, ba léegi moom Ousmane Sonko euh, ña ma ngay ma ngay jur maanaam ma dund li nga xam ay répression a chaque fois ña ngay ci kawam suñu ba dem na suñu ay administration aussi. Euh, Euh, bëgg a dugg ci loolu li mais dafa on dirait que ni xañ Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle yi maanaam jaral na leen lu nekk jaral na leen sax ba ñuy défier li nga xam mooy la justice sénégalaise. dañu wax ne ñoom ñoo ko moom. Mhm. parce boo nekkee président bi mën a décider. Mhm. kii dañ koy baal kii duñ ko baal. xam nga déjà euh, moom mooy di magistrat euh, moo nekk le chef de la magistrature donc la justice a encore dañuy wax ne man ne moom justice bi mooy le jour des élections mm. la population sort décide de ce qu'il faut faire boobu mooy boo xam ne à la limite on sera indépendant un peu mais magistrat o gendarme o euh, policier o euh, boo nekkee sous les tenues dañ mm-hmm. wax nga def boo nekkee administrateur aussi de l'État <laughs> mm-hmm. de état bi ki ko diriger nekk président euh, lu mu wax tamit na koy def waaw moins que na nga bëgg a xaru xaru moom wax du xaru sax parce que ñaari magistrat yi wax dëgg bi léegi ñu leen doon jéemee def lu nekk mais taxul ñu ngi fii euh, je crois ñu ngi ko defal defe naa bu ñu joxee jotee bi gis nga deuxième kiiwu constitutionnel bi sax moo ko moo ko leeral ah deuxième passage constitutionnel bi dañuy wax lii mais am na lu des donc boobu ñu ngi koy préparé ah nee nañ ko prochain euh, prochain Dakar bi jugement wu Dakar bi du la naru la wax lu la neex préparé nga xam ne dëkk bi toll na foo xam ne ñun lu ñu man a obéir obéir am na loo xam ne mënuñ fa dem mënuñ fa toll bon léegi nag bu demee ba xaw ma dugg en cachette euh, déposer dossier am à la cour constitutionnelle mm-hmm. bon kooku tamit ça fait longtemps ñu koy jëmee euh, xelal euh, waa Pastef ak waa Sonko yéen xam ngeen lu ngeen def ñu ngi préparé donc essayez de garder un peu plus de secret de li ngeen di def garde leen ay secret di li ngeen di. mais on dirait que ne jamono ji ñu ngi koy jëfee. waaw apparemment loolu lañ def boo dem nañu cour constitutionnelle déposé en cachette. voilà <laughs> on peut dire. li ma ragal nag mooy est nañu reçu est am nañu décharge. parce que kii ko jot mën na ko bëggoon neexee mu ne réceptionniste ma ko def euh, man président bi sama yoon nekku ci gisuma ko alors que bon j'espère que quand même tous les conseillers juridiques yu mu am yu mu demee foofu même si c'est en cachette j'espère qu'il a qu'il a quand même un récépissé que sachant que son dossier est là-bas okay. sinon dossier boobu mën na dugg ci benn poubelle <laughs> facilement euh, jour décision bi ñu ne gisuñ ko Ah, on peut s'attendre à tout j'espère quand même que nu mu mën a dem daal léegi mais nag loolu nag moo ko dese parce que vraiment di dem les choses en discrètement ah yéen journaliste mi ngeen may ko mu mu dem mu avancé doucement ba 2024 mm-hmm. waaye léegi def naa moom mooy euh, mooy marchel presque rajo yu bëri ak euh, télévision yu bëri amul jour buy xew te mënoo wax affaire Sonko ci télévision bon loolu tamit xaw ma nu ñu leen di ñaane bi ñu jéeme ko wàññi mm-hmm. euh, ñu jéeme avancer ndànk ni ko wolof yi di wax di ku yottu saxat on peut dire tamit stratégie yi nga xam ne ñoom ñu ko doon wax ne ñoom lañ teg parce que gis nañ ne ba ñuy déposé caution Ousmane Sonko kenn yëgul woon ba ñuy déposé caution tamit euh, Bassirou Diomaye Faye aussi kenn yëgul hmm. ba ñuy déposé tamit euh, seen ay candidature Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko aussi tamit kenn yëgul mu nekk ab stratégie boo xam ni au moins tamit euh, bien vrai que ne dañuy bañ ñu jiitu leen foofu dana gis nañ fépp fu ñu annoncé dañ fay barricade peut-être tamit loolu la ñuy bañ waaye loolu moo tax ma ne ñi ñuy def ndànk Euh, presque en cachette ni nga ko waxee parce que le problème tamit euh, bu ñu xamee ne tey yaa ngi dem tel bureau hmm, chef yi mooy jëkk jotoo ordre bi kii bu ñëwee bu ko jël mais sa tombe bien que man mi nekk secrétaire bi jotaguma ordre bi ma jël sa dossier gisoo moo daloon ci chèque bi chèque bi jëloon nañ ko ba ñu koy delloo waaw waaw waaw donc xam nga boobu fekk na ordre bi ñëwul ah mm. kii fa nekk war a jot ay chèque euh, pour constitution candidature daf ko jot normalement il a fait son travail mais après tu as ça de haut dañu roy ordre ne ko yee eh, yow li nga def nii baaxul dama delloo ko ci <laughs> donc pour éviter ça je pense que léegi je pense que ñun ñun ñëpp xam nañ ko il faut monter les dossiers en presque en cachette dem les déposer en douceur jéem a jot nag sa reçu parce que reçu boobu même bu jegee ci secrétaire sa engage euh, ça engage le directeur ou la le responsable de la direction voilà euh, ba léegi ñu continuer euh, waxtaan bi ci boobile euh, ci boobile wàll et que aussi tamit Ousmane ko déposé la li nga xam mooy dossier am tantôt ñu ngi ko doon wax kantaan nag ba xam dinañ accepter dossier bu pas peut-être le conseil constitutionnel moom moo koy décider ndiki 20 janvier su joxewee liste officielle